nan sant yàlla sil xadar ki sàkk laylatul xadar te sant Maymuunatu ngir moo fonk laylatul xadar soxna Maymuunatul Kubra soxna Maymuunatul Kubra di kenn ci njabootu ku tedd ki de Sëriñ Tuuba Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul moom nag mi ngi gane àdduna ci ñaari jur yu sell di Sëriñ Tuuba Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ak soxna Amina Buso mook soxna Xadiija ak Sëriñ Abdu Xaadir Mbàkke Ilimaani Ilimaan ya ñoo bokk lépp ak ganeem àddina nag mi ngi gane àdduna ci yéen Jolof bisub talaata ñetti fane tabaski ci Hagsazin atum 1325 ci gàddaay gi 7 janvier 1908 ni ko sëriñ bi baaxoo ci lenn ci njabootam bi mu gënee àdduna sëriñ bi dafa génne ñaari xasida génn gi mu tënke ko allahu tàmbalee ko ihfas li wajhikal karimi bu ñaareel bi mu tënke ko alhaadi tàmbalee ko ihdi jamiana siratal mustaqim moo tax mag ñi daanañ wax ne soxna Maymuna Tudde faw mu yàlla faw mu jëpp ak njàngam nag mi ngi jàngee alquranu karim fa sëriñ daam abdourahman loo ba mokkal ko bind ab kaamil jëbbal ko waajuram wu tedd wa di sëriñ Tuuba xaadimu rasul fa njaareem sëriñ bi daal bég lool ngir ñaari yëf bu njëkk bi mooy kaamil bu jigéen na njëkk a bind ci loxoom jébbal ko ko bu ñaareel bi Cheikh ya daf ko wanoon ba muy nekk Mauritania kaamil bu doomam ju jigéen bind sëriñ bi amoon yéene lool ci am lu mel noonu yàlla njëkk koo dogalee nag ci moom moo tax ba kàddu yii la ko sëriñ bi wax may mun a tuddee sama takki xol ja yaa ko tekki dëxal ko ci ay mbir yu bari door koo jox ndigal ni ko demal fa soxna Faati Ja mu jàngal ak taalibe lii firndeel nag Kaolack la ko ñu fekk dafa yónni Serigne Cheikh Soxna mu ñëw Touba ngir laajal ko ndigal la am amee a fotaw wàllu xam-xamam itam mi ngi ko jàngee ci ñaari nijaayam muy Serigne Mbacke Bousso ak Serigne Mbacke Kanni ba yàlla may ko ko mu géej ci loolu moo tax daana bind ay taalif ci arab ak ci wolof yenn yi mu ciy wax solos weeru koor ak weeru gàmmu wala muy soññee ci tuub ak ci luy dolli pas-pas ci sëriñ bi te muy lu yaatu loo xam ne mat na ab diiwaan boo xam ne dajale nañ ko ñu jël misaale ci ay taalifam ci arab xasida gi ki nga xam ne daf ciy tuub di ci dellu ci boroomam moo tax mu tàmbalee ko ci bismillahi allasi la rabba siwaahu wal muxtaaru abdun xibba inni talabtu tawbatan lillahi minhu taala bi rasulillahi inni ubaylatun daifatun laka maali huna siwa rijai fadlaka am na itam yuy wolof yu siiw yu mel ni bi muy soññi boppam ci sëriñ bi mu tàmbalee ko maymunatun bintul xadim war na la foo li di jéem lu neex sëriñ bu mag bi déem am nga ci ngoox dara dara ak yeneen yu bari yoo xam ne soxna maymunatu def na ko ay jikkoom nag soxna Maymunatul Kubra ku ragaloon yàlla lool la ba daa feeñ ci ay waxam ak jëfam amoon na itam ak sàmm lool naka noonu ku maandu la woon daana jëllale waaye itam daana jéggale naka noonu ku yeewu woon la bari xam-xam loolu nekkoon tamit ku bëgg mbokk loolu te daa ko jokkale loolu ràññeeku woon lool ci ak defar doy na ci misaal Serigne Souhaïbou mii ñu nekk ci at ci at ci atam ñu fa mës am ak réeroo day wax ne nañ bàyyi ba soxna Maymunata ñëw lijjanti amoon na ak ngëm yàlla loolu ñeme woon ko ci ak taalube doy na ci séere bi mu noppaloo sëriñ Mahamadul Fadil Mbàkke dafa wax ne nan ko yóbbu fa watu Cheikh Ibrahima Fall ndax mu xam ne sëriñ Touba am na doom ju mel ni moom ci Pastef mu nekkoon nag koo xam ne dafa amoon ay ay jikko yu rafet loolee nag tax na ba ñu bari ci waa jamonoom sawaroon lool ci jëflante ak moom loolu nag tàmbulee ci njabootu sëriñ bi yëpp ba fu ñu nekk am na fa ay turandoo mu gënoon cee ràññeeku sëriñ Souhaïbou Mbàkke ak sëriñ Abdoul Ahad Mbàkke ak ki nga xam ne ñoo jàngandoo defandoo lépp muy sëriñ Abdoulahi Mbàkke boobee sëriñ bi itam noonu la meloon ak ñoom di leen nemmeeku di leen teral ngir jëmi sëriñ Touba xaadimu rasul ba ñu bari ci ñoom na woon ay jikkoom loolu yu rafet ba tuddee ko ay doom mel ni sëriñ Mbacke Bousso daf ko tudde doom ba noppi wax ne li tax ma tuddee ko ko mooy xam ne mënal na ko dara ëllëg yowmal xiyaam ak génnam àdduna nag moom soxna Maymunata Mbacke mi ngi génn àdduna bëccëgub aljuma le 11 ci sur le xeanda atum 1385 ci gàddaay gi dëppoo ko le 4 mars 1966 ci juróom fukki atam ak juróom-ñett ñu jébbal ko boroomam doomam yor yorub gaawu sëriñ Mouhamadul Basir moo ko taxawu moo ko defal lépp kon soxna Maymunatul Kubra yal na suñu borom yokk ay leeram te tas ci bàkkeem yàlla fay taw ba itam dafay sëriñ Moodu rakam ak seeni doom ak i amin ci laylatul xadar